ñang de way góor saane ñang de woote na ku am canganeel ya ñang de woote na ku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 Mawlana Maam Gor Sané Niang taala anhu wa arda ci ndigalu sëriñ bi ñi ñëw fii sur les traces de Maam Gor Sané ñi ñëw lenn ci ay jaar-jaaram ñëw ci lenn ci dëkk yi nga xam ne ni Maam Gor Sané Niang jaaroon na fi yonen waaye la ñëw mu jëfee ko li ñu fi tax a toog mooy waxtaane kan mooy maam góor saane mii nga xam ne radiyallahu taala anhu moom la sëriñ Cheikh Faty mii tooge jataayam góor saane tuddul góor saane yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa la ko baayam tudde woon li tax ñu di ko wax góor saane mooy njàmbaaram ci diine njambaram ci njangalé njambaram ci liggéey lum ko mësa bolé ñun mu man ca ba nit ñepp tuddi ko goor gi fi man lolo indi goor goor saane ñang ji muhammad sallallahu alaihi wasallam mom la ko bayam tuddi mom nak mi ngi juddo ci ñaari wajur comme ni ko ñëpp ci wajuram wu goor wu tuddu barakhu ak wajuram bu jigen bu tudde saane awa dikke Camara moo waree Camara wàcc dëkk bu ñu wax cànqe jur fa faa sànqe ak ndumbe sànqe ak binta sànqe ñoom ñett ñoo bokk ndey ak baay fat sànqe moo dem aafe jur fa gàdd faa sànqe mu jur baaro kujj mu jur góor saane góor saane jur alaaji Bamba mu jur xalifa bii toog ndumbe sànqe moo dem waalo jur fa asta asta jur jaara ak mati busa ñu jël mati busa dénk ko baaro kujj mu am ci malaamin mati ak njóobu mati te dañu wax ne affaire bi ñu ko sancee ak tey mu ngi nekk 1580 lañ ko sancoon 1580 boo ko calculé ak jamono ji ñu toll muy 2023 mi ngi nekk 400 443 ans moom la am tey moom affaire. mbir mi nag buñ koy tàmbalee dañ koy tàmbalee ci Mame Bara Khoudia ndax mooy ndeyu mbind gi moo doon jëmm joo xam ne daa sooban sunu boroom muy ku matal sëkk ci ay jikko bari woon xam-xam lool bañ di ko wooyee tafsir xaadi woon bari woon alal lool ci jamonoom ñu wax ne li mu fasindaar guur yi daawut manqué bu daanoo rek ñu bi beneen ay toolam ak i mbayam tam àggoon na ci jolof géppal yi ñépp moom lañuy nooral si kenn ko ne bu ñëwee dana la jox sàqum ñett lu pël yi bari bari nag pël bi dana la jox sàqum ñett kon liggéeyam yaatu woon na lool Tafsir Bara Khoudia Niang fii la nekkoon ci aafe jolof ab diir dem na fi mbooy naan ñëwaat aafe mbabba joxu ba seesi na ko fii xare bi mu waaj ni na ko soo demee ci sëriñ boo xam ne daal ay aat danañ la wàccil kaamir lu mët juróom fukk wala juróom benn fukk danañ la wàccil kaamir dañ ci génn mu ñëw fi yoor yoor fekk lu jiitu loolu saa maam baara xujja ma nga doon jàng moom ak góor gi Mor Anta Sali ñoo bokkoon daara fan doon jàngee ci sëñ daara ba sëñ daara bi masa am gan benn góor yàlla mu fanaan fa ba xëy na ko sëñ daara mu naa mu ne ah, sa dongo yi day am na ci am na ci ñoo xam ne borom cër lañ de ñaara ci ñoo xam ne borom cër lañ mu ne ko ah, mu wax ko ni mu melee bi mu ko waxee ni mu mu xam ne baara xujja ak ak Mor Anta Sali moom ah, yàlla def na juróom-ñaari doom yu góor la ko yàlla dénk. mi ngi amoon doom bu ñu wax Mouhamad Lamine Mati Mouhamad Lamine Mati. mi ngi nekkoon Kambel defe na amoon na sax doom bu ñuy wax sañ Njóogu Ñang euh, léegi Njóogu Mati moo ci teguwaat suñu maam Njóogu Mati Ñang moom it amoon na doom bu ñuy wax sañ Baara Ñang ci la sañ Sédax Ñang bu bokk bu bu Touba amoon na ku ñuy wax Daanu Saane Ñang Daanu Saane moom it ku ñuy wax Baara di ci doomam la woon euh, amoon na ku ñuy wax Samb Koune Ñang Samb Koune Ñang moo juloon Tafsir Ma Ñang ak Abdou Mati Ñang ca Mbos Tafsir Mañang nekkoon fii ci Affé ah, amoon na ku ñuy wax Mohamadou Fadja Mañang Ahmadou Fadja Mañang Ahmadou Fadja Mañang boobu mi ngi nekkoon Touba Kañang amoon na doom bu ñuy wax sëñ Cheikh ak sëñ Modou amoon ku ñuy wax maam Góor Sall Ñang muy lool fii ci Jolof gi ñu nekk maam Góor Sall ay njabootam yaatu na ku mel ni Baye Laaji Bamba mooy Alaaji Cheikh xumb na Baye amaat ki nga xam ne ki moo ci mujj muy Masek Fasaw di suñu maam bi nga xam ne moo jur suñu baay Yuusufa ah, mu moom ci njabootam la moo ci gën a nekk tout tànk bu maam Boar Kujj moom yàlla def na ay doomam yëpp moo leen jàngal alxuraan jàngal leen xam-xam góor saane ak daanu saane ñoo bokk ndey Masek dong moom caat la biñ fi nekkee nag ba nga xam ne bii góor bu Boar Kujj gaañu na ñu ngi def xare bi biñ xare bi ñu doon def Saalum maam njóogumati bi mu jógee ñoom ñëpp ñoo jóg ba ma ci ma sekk mi bi ñu ba nga xam ne dem nañ ba kadaw daw li ci yoon wi sax lañ ko ñii dañ ne ci yoon wi la ko ñii ne kadaw daw ñaari ñaari riwaayaat la ci lan ne jëleel ne waaye ñun liñ def est xam nañ ko mi ñëpp ànd bu dee amee ko kër gi day raaf de ci lan ne nag wàññeeku ma sekk wàññeeku mu ne ni ngeen bëggee yàlla laa bëggee ñu la ko waaye ndigal jëfee wàññeekul yow yàgg lenn ngeen dem su yàlla defee ñu facc baa na suñ fëccul ngay jiwu loola maa waral mu wëññeeku ñëw ba demee ba nga xam ne dem nañ ba xare bi tàng daal li wax nee nañ dem nañ ba maam jógumati daal nee na leen tey ji su fekkee cedd bi dawut ay liggéey na lay jullee ji takkusaan su fekkee ne nag dem naa ñi fi des wëññeeku gisu ngeen ma dénk naa leen topp leen ci góor saani ba ba ngeen may fekk si fekk maam Baara Xuji daana leen wax na leen euh, góor saani mii nag na ngeen xam ne bu gundee bu dundee am barke bu dee dem aljanna waaw mun leen loolu daana leen ko wax mu ne maam góor maam jóguma ti nana ko woon nag góor mag mu ne ah mu ne ko lii nga lii nga sàlloon gis ma ne ci sàlloo la ci ba ba nga may fekk si boo xamee ne di maali maali feeñ na nag na nga moom booy seet taxawaayu Cheikh Seydi Hadji ci Jolof da nga cey jiital maam góor saane ñang ca ngeet maam alaaji daawuda ja ca mbëllëxe ak mag ñi ñëw ñëpp ci seen gannaaw nga xam ne ñooñu ay gayndey lislaam lañu woon ay gayndey tarixa bi samp ko fa ci ndigalam di ko fekk Tiwaawan jóge fa di fa fekk doomam yu baax yi Sidi Aboubacar alaaji Abdou ba ci sëñ Babacar si Mansour mii maam góor saane nag bokk na ci yin mën a jàpp ci moom mooy gannaaw bi mu jógee aafe jaar ceel di wër kurkur jorof bi fu mu mën a jaamoo yàlla ba ak si ngeen mbokkam yu baax yi sant caan dalal ko fa mu am aussi nag tegtalu baatin ci sëriñam Cheikh Seydi Hadj bokk na ci yi mu liggéey jolof li ci gën a fés moo di bokk na ci ñi njëkk a woote jolof nit ñi jóge fu nekk avec leur différence ci juróom-ñaari canton yi ngànk jolof la ko dale ci xer gi jaar ci njëngeel làcce fi pël yi nekk jaar jolof penku jaar euh, sagata fekk si ko jolof nga xam ne kon li nekkoon différence ci nit ñi ñii di ay pël ñii di ay naar ñii di ay wolof yu bokkut pas-pas góor saane bokk na ci ñi leen dajale góor googu euh, li góor li Seydi Hadji Malick di bari la bari la ñëpp xam na ne ca teenu njarne ba ca la góor saane def rawoon fa la rawee ñëpp it nag ndax li teewoon ci kër ma ma maam Sidi Hadj malik moo ñëw exploité ko ah, ci fulla ak jom ak lu kiw bi muy matagit nag maam ah, maam Sidi Hadj Malick bi muy matagit nga xam ne gàmm gi daf ko centralisé dafa joxoñ loxo bi ne ba ca góor saane demaat na fi mbooy naa demaat demaat ci yel ci liñ wax fi ñu ci rewaayaat yi nee ba mu demaatee góor gi mu dem ci alaaji Maalik na ba mu fa demee mu ne ko alaaji góor saane mu naa ah, mu ne ko ci na ci sori na ci man ak yow de mu naa ah, mu ne ko daara amut daara amut mu naa ah, mu ne ko boo demee dikkal soowu daara fi ware daa soowu daara mu ne mu ne ko foofu sa moo ko waral mu indi moo waral mu jóge Thiel ñëw ngeet waaw maam góor saane fii la nekkoon aafe li waral yaari alaaji Ousmane yooyu nee nañ ma yàlla dafa def ñaari soxnaam yi kii am gone kële am gone fële mbayeen ñii ne ñii euh, fële ci Jolof daal léegi mu ne ma sekk maa ngi dem ba demee yàlla def muy góor maa ma sekk tuddee ko daanu saani moo it mu dem muy góor mu tuddeeku muy daanu saani mooy waral yaari El Hadj Ousmane El Hadj Ousmane ak El Hadj Ousmane Soxna. maam Baara Khoudia lum mu fi nekkee woon jàng jàngale bay waaw jàng jàngale bay. ndax wax nañ ma ne wax nañ ne wax nañ nañu ne sàqi sàqi daaw daawaati jéega bi boo dikkee dañ la dàggay daaw ji jëla jo mooy daaw joj daaw jéeg jë joj daaw jaa ji joj ren jaa ngi nii waaw dañ daa fekkant waaw dañ daa fekk ba bi mu demee loolu la maam maam loolu la maam ma sekk doon def ma sekk moom dafa jébbalu boppam góor saane bi mu fi nee ba bi mu fi jógee la door la door a feeñ waaye bi mu fi nee nit ak magam musta musta leen wane leen nam wala mu feeñal leen nam waaw dafa toppoon ci magam rek. lu ne def na ko fi lu ne def na ko yàlla def na kere bi muy dem mi ngi fekk benn mi ngi bàyyi benn taalibeem waaye na leen woon suma demee na ma góor saane toppatoo ñu ne ko bul ko buñ ko mënee jot mu ne leen su fekkee li ma yaakaar am na góor saane may taxaw su fekkee li ma yaakaar ci moom am na góor saane may taxaw. góor gi génnoon àdduna maam ma gumba ndaw la tudd maam ma gumba ndaw noonu dafa julli àjjuma ba woo njaboot ñu toog. mu ne leen maa ngi leen di xamal ne maa ngi leen di xamal ne jot naa sama caabi àjjana altine laay dem barsax te ma te góor saane moo may jullee si te boobu góor saane ngi mi ngi cël bi ah, biñ jullee suba altine ñu dem di ko yeexi ndékki ak ni mag ñuy def di ko seeti fekk mu teg loxo yi ci kawam ndekee góor gi dem na barsax ñu dal na néna won de góor mo koy julé ñu dégg rek rek ji rek ndeke bi 9 h di jot ñu dégg rek rek ji rek ndeke pass yaangi tak dew di ñew bi mu mu dal ni ah mbaa dencagun ko ñu né dédé mu né barki dembu ci aljuma ji lama xamal ma damay dem sax altina ci yaa julé ci ma guma ndaw laaji na won ndaw mi jur pen ndjay mu jur amadou ñag mi ak cheikhou ya jama Nyonyo ñoy ay sëta man nañ dem ban na la fi leen ko denc gor saane ko julli mam gor saane yakana na momit du lacc xam nga Alaaji Bamba def na fi lu ne Baye Alaaji Cheikh yalla nako yalla yok leeram ku tëddaa ban defee na da ngay dee fekke fekkee bo fa demee genn bo fa demee rek genn Baye Alaaji Ousmane soxna mo toj ay normal nek fa gis nga ko Baye Ibrahima Niang gudd fan lool waaye gis nga mooy papaay Serigne Mor Basi Niang Baye Laaj Ousmane gis nga ko toogee na ci xilaafa gi lim fa war a toog lim fa war a def na ko sama baay wan na wax na ma ne ma Alaaji Ousmane ma ne ko am ah, mu ne ma daf maa won wonati ma. wala dañu wax maa ngi dañu wax ne affaire njëkkoon na am dëkk bu ñuy wax góoreel fii ci tund wi la nekk woon amoon na fa ñetti téeméeri at lañu wax gannaaw gi maa ngi jógee fa demoon benn guerre yàlla dogal bi ñu demee ci guerre boobu wut Saalum bi ñu wàññeekoo mag ñi ñu ci bëree bëri ñi wàññeeku yem aafe ñi jëm Touba comme Mahmoud Fadiama ñoom ñooñu ñenn ñi demaan mooy naan. Ah, at mi nga xam ne maam ma Seck dafa tëg nii ci néegam bii yàlla dogal maam Góor Saane jógee ngeet ñëw di ko ndokkel kere bi mu ñëwee gàtt bin ko rendil eh, ganaleeku ko def ko ñeleng Baye Omar Ndiobane mi nga xam ne tey moo ñaareeru doomu Masek Fasow radiyallahu anhu moo doon toppatoo gàtt bi bin ku ko defalee ñeleng xam naa góor gi góor saane ku bëggoon ñeleng la bim ji xéwloo ba pare mu daldi ne ma sekk mu ne ko ka mu ne ko ah ñam bi da jag na defar nañ ko mu ne ko gàtt bi de Omar Ndiobane laa ko joxoon mu ni ko defar mu ne ko woo ma woo ko ma defar ci la tibb benn dank boole koog yàpp daal di ko koy jox na ko lekkal mu lekk ko 92 ans kenn mosu ko piqué hôpital mosu fa dem ki nga xam ne kii tey moom ñuy tuddee Bamba Buri di sama bay nekki mu nga xam ne nekkee woon ko maam góor saane gisoon na ci moom loo xam ne kóolute xamoon na ci yaakaar xamoon na ci kulte googu it nag mi ngi ko xamee ca ba mu xàndeeg moom dem Thiel tuddoon na ab lim ci ñi nga xam ne ñoo xàndoon na góor saane dem Thiel xamoon na xamoon na solo lool ndax takku woon mu mel ni liñ bëgg xam mooy fii ñu taxaw ci bërëbu maam Mati ak maam Sàmba Kuna xam na lu ko jiitu nag la ko jiitu mooy dëkk bi fee mu nekkoon lu toll ci un kilomètre benn déeg bu ñuy wax tibb maanaam góréel fala maam Cerno Korka tëdd Cerno Korka Cerno Malick mooy wajuram maam Cerno mooma mag ñi dañuy wax ne lépp loo bëgg ci xaaja boo ko fa ñaane sa borom may la ko xam naa ci dara nag war ñu tënk loola foofu nag fan leen Seydi Hadji Malick fekkoon ba leen fa fekkee mi ngi doon xam ak maam Samba mi ak maama Seck ñu di wër dëkk bi di nuyoo ba ni Seydi Hadji Malick dellu del si dëkk ba jóge fa ñëw fii mag ñi nee nañu bi ñu ñëwee fii fii leen sëñ fekk buy gii ci la daan toog di wéeru di fi alxuraanam ak xasidaam moom ak maam Amadou Fadiama ak maam góor bi ñuy wax Samba Gueye góor gu ñuy wax Mor Soxna Kumbaar ñoom fii lañ doon bokk di nekk ci taatu guy gi boobu guy si tuuti la. am daam baasi mooy maami waa jooju yi ñu sant soog bokk maam Njoogu Mati di ko jox wirdu Salaatul Faatihi génn séq gu xonq la jox maam Njoogu jébbaloo ko ci moom mu jox ko wirdu Salaatul Faatihi maam maam Njoogu soog a maam Góor Saane jógee jóge fii dem Thiel. dàmbaasin feebar tëdd lu mat weer lekkut naanut mag ñi xëy daal ne ko dañoo bëggoon de tey jii ñu yëkkati la jàppale la nga naan mu ne bu ma kenn jox seen ndox yu bon yi keroog ba mu njóogu ba joxe wi de saatul faatiha keroog la ma tànkoon ca kaw sara jox ma ma naan ma nàndal ma ca maru ma xiifu ma bu leen ma jox dara maam daa may wax loolu daal ne ndaxam ma sekk mun naa mu a ko ana ana góor mu ne ko góor de ma nga ciyel mu ne ko man damaa bëggul mu ñëw yeesal ma te ma dem maama sekk ne ko ah xam naa xam damaa xamul yàlla mi dogal di téye sa fum fu mu koy fu koy dogalee de waaye mën nañu waxi góor de waaye balaa ñëw lañ xamul lu muy doxalee suba teel gi mu ko koy wax nii ci yoor-yoor lañ seen ab pënd bu jógee nii di ñëw ba mu ñëwee maama sekk taxaw comme nii ñu taxaw taxaw ba yàgg mu ne waaw kii war fas wi sax def mel ni góor ak ñu mu àndal mu egg seen a cëpp daal ne ko ana daam mu ne ko daam day ma nga tëdd mu ne ko nañ fa dem ñu yegg bi ñu yegg maam daam ne bëri jóg toog daal ne ko góor ñëw nga mun a mun a ko yeesal ma damay ñibbi maam maam góor yeesal ko ba mu paree daal ne ko maa ngi dellu Thiel mu ne ko lu mën a xew kat mun naa mun a ko na nga wax ci man mu ne ko ma sekkan fi bàttali naa la ak moom. su ko defee it nag ñu xam ne maam Saane Ndiaye mi nga xam ne moo doonoon waajuru maam Góor Saane ñu ngi ko denc ci armée la afe moom ak ki mu bokk na kóllëre Fass Sow mbay mi jur ma sek Fass Sow boo ko seetloo ñoom ñaar seen diggante matut juróomi mètre tabax bee ngeen di seen mooy maam Saane Ndiaye ah ci peggam ci sëng ci sump gi ci taat sump gi sëng gi foofu la Fass mbay nekk moom moo jur masek sek mi caatam baara xujj way gursane ñang dewote na ko weji am canganel am canganel ya topp jaar jaaru maam Goor Sané Niang ku ko wax di wax Thiel ndax Maulana maam Góor Sané bi mu jógee dëkk bi nga xam ne nii mooy Afe dëkk bii nga xam ne mooy Thiel fii la wàccoon ñi ñëw tey ngir waxtaanee histoire u ak lenn ci histoire maam Góor Sané mag ñi nga xam ne nii ñoon la fi nekkoon ak Thiel ak njaboot gi mu fi nekkoon ak lenn ci li nga xam ne nii ay aathaar la ay njeexintal la ci dëkk bi nga xam ne nii mooy Thiel. fii la maam Góor Sané doon bàyyeekoo di ci Maulana maam Cheikh Seydi Hadji fii la maam Góor Sané ña ngi doon bàyyeekoo. di dem fi nga xamne ni moy mam Serigne Touba di ko fekk Njaareem fi le Maulana mam gor sané Ñang don baye ay tolam fi le mam gor sané Ñang defoon ay ay daram don fi yaree ndaw ñi don fi defé tarbiya mag ñi nga xamne ni ñoom la doon andak ak dëkk bii ñu tok Dakar gi ñu nekk place bi mam gor sané Ñang jaaroon na fi place bi mam Cheikh Omar fouti tal jaaroon na fi. waaye ndigal la ñaw mu jëfé ko barké badal na gor cheikh Fadi Nyang sunu maam moy Khalifa maam góor saane bi nga xam ne turu ciel wi liko indi moy cieli cieli moy sel moy ay sel yi peul moy wax ceeli yàpp bu ñu seel ay sel mo indi turu woowu ndax danaan muy ray ci rab yi ñi sel di sel di sel bam aw ow ñu ci loy mu yóbbu ko te wi dem wawon wi dem Touba waxoon na ma sax ñi ko daan yóbbu ñi daan jiital looy ki ci mujj mujj mujj nga xam ne moom mujj dem mooy ku ñuy wax Amat Xaar Sar kooku sànqal la daan yóbbu mustu yóbbu yàpp sànqal la daan yóbbu kooku moom fekk naa ko fi mu nettali ma ko moom sànqal la daan yóbbu moom mbaam la daan yóbbu moom sama bay góor góor góor nga xam ne mooy mago sama bay muy góor saane aw lool la yoroon loolu lu mujj li la koo ñooñ ay sëtam lañ koo gëlëm la yoroon gëlëm ak tukkal moom la yoroon moom it ci la daan sëf dem moom teewaawoon wala mu dem Touba kii dem teewaawoon dëkk cosaan ba nag fële la gent ba ndax mën naa dem ba na la fii la jàkk ji ne bu mu amee daba mën naa gas ba na la fondement baa ndax dañ ma kaa won ba léegi xam naa fu mu nekk xabri it fañ nekk it ko it xam naa ko won nañ ma ko kon lu ma ci munti wax it bay naa lu ko ëpp lumu ci munti wax bay naa lu ko ëpp moom moo ko sanc moom moo ko moo fi indi ay ndawam ay taalibeem maam xaar bu fi ñëwee maam góor moo xañtu ba gis tund wi mu woo ko na ko nañ tase tund sangam. Ah, bi mu fii ñëw defe naa ne dañoo wax ne jaar na diggante bi am na fi ñaari fan fii ak aafe bi mu jógee mi ngi jaar dëkk bu ñuy wax euh, Maaro ay pël fa nekkoon ñëw dëkk bu ñuy wax lool lool. jóge fa ñëw Kéetu jóge fa ñëw Ngelwaar jàll si bi boobu yoon sax amul li ñu wax euh, ñal la rek comme fu ay nag yàgg jaar mu nekk benn tracé rek moom la topp ba ñëw fii ah li ko fi indoon nag xaw nañoo jaaxal ba mu ñëwee yàggu fi waaye bi mu fi ñëwee képp koo xam ne nii fekkoon na la fii nga doon kuy màng wala keneen bëggoon nga koo jege si ndax li taxoon ko bëggoo jege si ak leer gu ko yàlla defaloon la. bim ñëwé ñëwee bi limu tang tang ñi wax ay rab li gëna tang ci rab li ñu wax gaynde mbëfër safanu yu yëpp amoon yo xamni xam ne nii bi mi guddi gi ñëk fanan fi mo mo mam bi mi fanan ak mam xaar fi juroom ñaari bukki la ray fi parce que gor gi ñëw andon na ñëw bu fi mu won ma ma xamul ci digënt bi fan Dakar googu ngeen génne da ngeen nekkon fa. Góor Saane dafa rëddoon benn rëdd am na nag lu mu rëdde woon rëdd wa moom mii di xalifa bi xam na ko la mu rëdde woon rëdd wa ba mu ko rëddee ak bantu yiir ba mu ko doon rëddee ak la mu doon jàng gaynde da daan ŋaar ba ñëw ci rëdd bi teg ci tànkam mais du mën a dugg ci biir nit ñi booba nekk amagu fa mu def fa lam fa def xëy takkulu ñeenti fas bii jaar ci sow bii jaar ci penku bii jaar saalum bii jaar gànnaar mu boole fas wu ne mu boole ko ñaari nit kim jox lim ko jox moom dafay li ñuy wax nguug ku takk say bët kenn ki nag moom tëkkuti bëtam moo yor fas wi waaye li taxoon mu jóg kii ci takk euh, bët yi kooku moom moo yoroon sekker bi tax gaynde yi ak bukki ak saafaandu yi kuñ ci dajeek fu mu fa yem mënatu faa lor kenn ñeenti butéel la defar padin moom la def fadin ne diw mu ne ah mu ne ko boo xëyee jëlal butéel bi yanal penk ba demal ba sa sa kër gi nga joge nga gas ko foofu suul mu ne diw jëlal yoon wi bëj salum demal ba sa kër gi yem ci sa tànk yi nga gas ko suul mu ne diw mu ne ah, ko jëmal nii demal ba sa ker gi yam ci sa bop nga sul ko nga ñu ñak ba mu nekk ñeenti xibla yëpp moo nek nañ fi ba ñun ñu juddu ket rabu allah lek fi nit ten bi nga xamne ne dañ ko lembi bant bu mu jog ci ko nga xamne ci leen daan naan ten ba nga nele ci nem nebe be mën dem ba mën la pind ba ngi ni ndax dafa dag ci suuf sama bay nettali woon na mu dafa dag ci suuf soo gisee Dakar gi moom bi mu ñëwee fi la njëkk yendu li tax Cheikh Oumar ñëw ñëw jaar fi moo fi di yendu fi maam góor fi la njëkk yendu woon ak dong yi sama góor gi moom nga nettali sama papa moom nga nettali loolu tax bi Cheikh Oumar jógee jaar xoge xam ay xaj lañ wax xam xaj yi waaw ko mu ñëw keroog moom it fii la yendu ba julli fi tàkkusaan soog a jàll maam xaar soo gisee buur ba jolof xam ko euh, maam góor saane moo ko boole buur bu jox la noonu na ñëw wallu ko moo ko woolu na ko demal nga wallu ji ko mu ñëw boobu moom ma nga bakkeel di boobu ma nga bakkeel di rëbb ci kaw li ma góor gi nattali mu ñëw mu boole ak moom yàlla dimbale ko ñi jotee ba mu ba mu mone buuru Kajoor Amat Saane la fi béy ak mbay mbay du mooy rakki Amat Saane moom la fi bay ndax moo doon jiite jàkk ji nekk ci pegg commune ba fee mooy fiñ ko denc ñooñ la fi bayoon mu nekk ay taalibeem ñuy bay di ko yóbbu ci moom léeg mu ñëw yuuru leen demaat ñu nekk tey di Dakar gi di jàbbi jula fi la njëkk a ñëw di gëstu te ci li ñu gëstu jëlee ko ci suñu baay wax nañu ne ki nga suñu baay bi nga xam ne moo doon jiite Dakar gi bu yàggul la gaañu ci julli kiit lii lañu ci moom lañu jëlee li ñuy wax nii wax nañu ne euh, ñi ngi ko sanc fii 1901 euh, ci loolu nekkoon na fi ak ay gor ay julit yoo xam ne dañ doon daan seen doole di jàng alxuraan di ñaan ci yàlla di jóge fii di dem Touba di jóge fii di dem Tivaouane di ut ay seel fii jaar njaareem wàcceel maam borom Touba jógee fa door a jàll ci seen sëriñ Cheikh El Hadj booba maam góor Sané ñang la ak góor gu ñuy wax daanu Sané ñoo bokk ndey ak baay moo daanu Sané des ci daare ji maam góor yónni maam góor Sané mu dem Tiwa Tiwaawoon lii moo fa amoon. maam góor Sané bi mu dikkee fii ku ne xam na ne. nekkoon na ci première bi ay jafe-jafe ndax booba dund booba lekk yombut waaye lu mën a am muñoon na ko liggéeykat la woon bay la woon ko bay baykat la rëy rëy rëy ku ñuy wax moom maam Gosaane wax la ko bay ko moo a bëgg itam nag tey nag ko yàlla mayoon la nag ci wàllu wàllu wàllu baatin bi mu neree bi mu neree ñëw fii nag am na fu mu jaar door a ñëw kenn ku ne nga maam Gosaane nag dafa noonu ku mën a ànd ak ñëpp xuufoon ñëpp yaatu woon lool nag amoon amoon ak may lool nag doon dimbale nit ñi ku fi masaan ñëw fii fekk ku fi tumarankeetoo bu ñu xasee nawet ba am fi am fi dugub moom ku fi masaan dikk tumarankeetoo soo fi dikkee loo bëgg am ko loolu day mu defal ko te fi nga nekk ba ba ak ba baa fiy jógee doo fi dégg loolu ndax doo fi am loolu maam Gosaane nekk woon na ko fi ku nekk xam na ne nag yooyu boo amee ala kulli aleen jaadu nañu di ko wax ndax gone yi ak ñi fi ak suma classe gi nga xam ñoo fi nekk ñu xam ne kon ku nekk ci àddina bi da am jafe-jafe waaye nag jafe-jafe yi deel muñ deel jéggale waaye del jëlale su ko defee rek danga nga mën a année yëpp maam Gosaane loolu ko mayoon lépp ba ba tax ñàkku dara ba fi ne kenn ku ne boo sañoon tey maam Gosaane sa maam. Ah, maam Gosaane sunu maam la yoo xam ne ci dégg-dégg kilifa gu yàlla mayoon la fii daal ma ku ci xam dara ku nekk ñi ñu mag ñu ci bari dañ leen a waxal waaye histoire bi fekku fi waaye nag wolof dafa wax ne nopp mag borom ba kon maam Góor Saane eh, bi muy ñëw fii eh, am na fi mag yu bari yum àndatoo nag eh, gor yooyu mën nañ la cee limal ay kelka nit rek Mañang Daado bàyyi Serigne Mor Buri sëriñ Mor Buri moo jur alaaji Baaba ñaŋ mi ñuy coow fii ci Thiel ak Moodu Fàllu ak man mii Moodu Fàlloo ma jur kon lolu man na jox tektal ci kii bi ak ku wax gor fati sow bay alaji baba sëtu ca siin nekkoon na fi ak marun xujja baye ngañ maram ak daanu qadi yi samba lawbe to samba lawbe besal nekkoon na fi ak mom ak omar sall ak demba sall ak mour basin bay omar Mati ak fati Asta bara njay Baye Kewe njay bara Mati Lam Baye Mbesaan Lam ñi may wax ni ñëpp nak tay seeni sët ñi ngi fi ci biir dekk bi ko ci tuddu kuma ci tuddu man nga dem kërëm gis ko gis fa sëtam Baye bara Mati Baye Mbesaan Lam ak sané Lam Hamad Mati Baye Kura Lam ak amad Lam. Mor Yaande bay alaaji sëri bàyyi alaaji ma sur ak ñang ca mbos boo demee mbos fekk fa ëtt bu mel noonu defe naa ne xam ngeen ko hmm. Mor Yaande bàyyi alaaji euh, ma sur ak ñang njaga jaw géy bàyyi njoogu géy ak alaaji demba géy ca daanu saane bay alaaji baara dii ak mati rekki alaaji baara di mom yen ñep xam ngeen ko ci côté Afe Samba Khady Dia bay alaji baba Dia ci Afe xaar bay mbay dula puman ak amad sané puman ñu tek ci sel top mami alaji Ousmane top ñu wax brassar bay amad ndey sar ak mam Ali sar ñoom itam batay fi lañ dëkkoon ak mam góor Saane euh, di di di di jaamu yalla maamu daada ñang bay muudu binta ak euh, saanduur tëgg bay moor nduur ak gàmmu nduur njoogu buri bay Ousmane ñang ak màggat jaw yaay ma sekk mi nga xam ne tey yàlla yàlla na gudd fan mooy imaamu jumaa ji tey macha allah yàlla na ko fi yàlla yàggal te wéral ko lool aada laam ak kewe ak yaama ñang ñoo doon yóbbu añ ca tool maam góor saane ñii ñoo doon yóbbu añ ca tool maam góor saane ñaŋ booba nag am na mag ñu bëri ne gis nañ fa kéemaan ci biir yóbbum añ mi niñ daan yóbboo añ am na kéemaan ñu fa gis kéemaan yooyu nag mooy tey ci tey bi ñu jomee di yóbbu añ bi ba taaj ci tool bi di xaar góor ñi ñu ñëw wàcc ñëw añ si ñu génn ci àll bi wër for ay neni naat yu ñuy wax ay neni naat ñëw ak si fekk ñuy waaj a julli ñu jël neni naat yi teg ci seen peg ne buñ ba pare ñu buñ ñibbee kër ga ñu baxal neni naat yi lekk ko biñ demee ba foofa nag biñ jullee ba pare ñu añ ba pare ñu jël neni naat yi yóbbaale ban demee nag ñu baxal neni naat yi suba ma ngoon neni naat yi munta ñor ñu ñu ku làmb ne naat yu day sedd guyu mu mel na meloon ñu ñëw ne maam góor saane ñun dey nee ni naat yi ñu yoroon biñ ko biñu biñ ko yoree bañ ko baxalee dafa bañ a kii dañ koo bëgg mu ne fu ngeen ko tegoon bi julli mu ne ñu ko tegoon ci suñu wet nii mu leen yéen tax ni man kuma ma jiite doo lakk ku julli doo lakk moo ne ni naat yi li ngeen ko baxal baxal du ñor du ni rek lay mel loolu góor gu yàlla joxoon na ko kéemaan yooyu. mam Gor Sané bokk na ci liy wone ne liggéey na Jolof néew na dëkk booy dem ci Jolof ak lu mu sori sori ngeen lu mu jege jege ngeen te fekkoo fa nangam ci ay Gor Sané Gor Sané goo dégg ci Jolof li ci ëpp moom lañ ko tuddee wala ñu tudde leen kun ko tuddee nga gis na kon jiwoon na kóllëre ay mbokkam yu mu doon dëkkal. jéewoon na leen ay baax séq ak ñoom loo xam ne lii gannaaw jàngal gim leen doon jàngal ak won yàlla gim leen doon won yàlla ay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom sutura ak teraanga joo xam ne fayee nañ ko ko la postérité loolu nag lu jara sel parce que dañuy wax ne ay turandoo ciw tund la koy defar mooy dëkkandoo gu rafet mooy sutura ak teraanga gu ay nit séq ba di ko mandargaale ci seen biir relation sociale mu bay fi nag euh, njaboot goo xam ne gii yàlla def na ñu jaar ci fam jaaroon mu def fa nag loo xam ne lii ci Jolof euh, ak ci Sénégal war nañ koy jàngat surtout ci période bii ñu toll nga xam ne nit ñi dañuy jël tariixa di fenq ci kaw tariixa di jël sëriñ di fenk ci kaw sëriñ mais surtout di nasaxal tarixa yi maam Gor Sané ni ma ko waxee moom Cheikh Seydi Hadji Malick la taamu woon jàpp ci gannaawam fekk na ko Njaarnde fekk na ko Ngambu Culle fekk na ko Tiwaawan moom moo doon sëriñam mais dafa def loo xam ne lii suñ ko bokk na ci yéen war a jàngat ci ay yu rafet ci suñum réew moo di bi mu taawloo góor nga xam ne moom la njëkk a gis ci takk ndeer ci kattanu yàlla dafa yónnee ci Cheikh Seydi Hadj yëgal ko ko ne ko gis naa lu góor di ci sakku ñaan ak ndigal mag ñi nee nan ba ndaw la dellu see daf ne ah Seydi Hadj Malick nee na ñaan gi jiitu na ndax naka jekk mi ngi fi ndigal li nag bu ma nee nekk na ko dugal ci sa kóllëre ak sa mbokk mi nekk Jurbel muy Cheikh Ahmad Bamba radio talaan mu tudde ko maam Cheikh Mat Bamba muy taaw nekk mu xaddami Seydi Hadj Malick nekk mbokkam parce que xam na ni ñu bokkee mais loolu du sujet bi séq ak moom ay sutura ak ay teraanga taawloo góor tuddewoo ko ko tuddewoo ko Cheikh na Tidiane ko Mohamed sallallahu alayhi ko maam Mat Bamba loolu day wone ne li mu nekk nekk taalibe Tidiane séqoon naag mbokkam ma maam kii Cheikh Mat Bamba teraanga sutura joo xam ne àgg na ci mu taawloo góor duppe ko ko bamba mooma mooy woy juru xalifa bii fi nekk tey di Cheikh Fatignan woolu góor saane góor saane guddi gu yonen Maodo nee na maam góor yonen way ndigal la ñëw mu jëfee ko barke ba dal na góor Cheikh Faty Niang sunu maam mooy xalifa maam góor Sané al su lépp ci Alaaji la man mii nga gis déew ma fenn daara gi ni jege-jege maa ngi ci ñaar fukki ak juróom ñett daara te yàlla ak jëmm ji tax lu ma soxla mu fat ko gosaane moomu nag moom la yàlla dogal mu juddoo aafetun ci baaru xujje baaru xujje toxu aafetun ñëw aafe ànd ak moom ban rob baaru xujje aafe moom góor saane la nga xam ne moom la njóobu ma waxoon ay rakkam ak magam yëpp nangul ko li ko yàlla defal maam góor saani moo doon léppi maam njóogu maam njóogu dañuy wax ñi ñi ko xam ñëpp dañuy wax ne xutba la yàlla joxoon ko mission it boo xam ne dafa war a tasaare lislaam bi waaye loola yàlla boole ko rakkam joo xam ne ju sës ci moom rëkk ndax madaamil mati mooy taaw maam njogu mati topp ci waaye maam góor saana gi Ngour Sane moom mag Amadou Fadiama ñoom maam Amadou moo ci toppaat ci man ak ñi ci des maam ma sekk ñoo mag daaw ñoo mag ñëpp maanaam waaye ñii ñooy mag ñi nga xam ne eh, ni noonu noonu lañ tof toftaloo. Thiel ba mu fay dem ba mu fa demee benn ay sayaan rek la fa fekk eh, loolu ngay dégg ñu naan am na pël bu mu fa fekk. pël ba moo ko fa fekk. di wëgg a doon wër ndox bi muy wër ndox nag fekk na gaaynde yi lekk juróom-ñaari nagam mu ñëw ne man dama doon wër ndox bëgg ku ma dëkkal te fekk naa la fi góorsaan ne ko mën ko fee dëkk mu jël juróom-ñaari nagi ratt ne ko maa ko jox taalube yi mu ne ko danaa la garantil na sa nag yooyu rab dootu ko lekk góorsaan nag nekk céel gas fa gor fab àll tabax fa jàkka def fa teen bu ngeen di wane ci këram ak fuufu këram gi nekk waaye ma ngay def yitti rek ca la ko njóogu ma ci ne ko rek bidiw na fekk ca waalo loolu moo koy sotti booba Sénégal amagul indépendance booba buur ba jolof wee buuna moo ko yilif boobu ma nga dëkkoon moom buuna ca tataja ca yang-yang mu bind leetar wee buuna jox ko góor gu ñuy wax Samba Lawbe sàll maam la ci alaaji Wuma ak Morloo mii maami gàdduloo mii boole ko ak euh, seeli njama la euh, ne ko yotal ko wee buuna ak lettre bi lam def ca lettre ba ca lañ ca mën a wax mooy ne yow mi fi nekkal tubaab bi yow wee buuna soo yëgee ku ñuy wax Malick si te Ousmane si jur ko mu dëkk siin ak Fawad Wele ca gaaye soo ko fi yëgee nag ma ko wax yow miy jokkoo ak tubaab yi. ba mu yëgee na Seydi Hadj Malick nag mi ngi dëkk bu ñuy wax Mbaxana euh, mu bind leetal góor saani ne ko ki ma doon laaj loo wax nañ mën ne jóge na gaayek ba ma nga ba mi ngi daal dëkk bu ñuy wax Mbaxana fa la nawet ren yóbbu na fa sax soxnaam suñuy wax sëf gëtu ca la yàlla dogale nag maam góor maam góor saani radiyallahu taala bàyyi xalifa bii ci li ma sam bind ma gis ko ci biir mbindam mu ne am nay jamono ñuy rëbbi waaye moom mu siburu moom bay alaaji Bàmba te kooku mooy taawam góor saane li mu def ci bokk kenn defu ko moom rek moo njëkk nekk mu xaddamab tijaan njëkk a tudde sëriñ Touba doom baam góor saane nag mbégte mam ci ñu ne ko alaaji Malick feeñ na mbaxana ñaari gaynde yooya moom la dem yot ku weebu na weebu na jël ñaari gaynde yooya jox ko tubaab bi gaynde yooyu nekk symbole Sénégal loolu bokk na ci li maam Gor Sané def bi loolu amee nag mu topp Seydi Hadj Malick ba fekk ko mbaxana wax ko ne ko nag sama mag bu ñu wax njoogu mati moo waxoon lii tey nag duma fi jóg te yeesaloo ma donte amoon naa tarixa bi El Hadj fala ko yeesale fa la ko joxe eh, lijaasa fa la ko wax lam ko wax ne ko yaay man may yow ban demee ba jamono ñuy def njaarnde mu ñëw njaarnde ten ba tëx bënn ñu ne ko bu fi góor saani ñewé mu bënn góor saani jóge fi and ak mbolo dem bënn ten ba bam mu ten ba sa alaaji Usmaan def na ci xasida xasida ne alaaji malik day bam ko joxee ndox ma nee ko am nga ngeureumal yalla am nga ngeureumal man alaaji malik am nga ngeureumal Seexu Amar am nga ngeureumal yonenti bi góor saane yalla dogal mu nek ci lolu ba alaaji malik ne ko lampe buy leral du fete pegg dama bëggoon nga jóg nga ñëw ci digg réew mi ngir nga defar nit ñi fa nekk diggante paas ak baxal ba mu ñëwee jaana dëkk bu ñu wax gase ci peggi Linguère ca la maami aali nguy boobu juddu ñu di ko wax maam góor ci lañ ko ko tuddee bim dikke dikkee fekk na ñëpp di jàngale ñu ber suñuy daara suñu wàjjur yi ña nga jànge woon ca mbir kilaan ku ñuy wax sëriñ Mor Xujja moo leen jàngal jox leen ijaasa bin ñëwee sama maam na leen ku mbër mu day na góor saane doo yeew moom di wuti feneen kenn ku ne na daal dem góor saane yeesal la ñu dem ñëpp ñu yeesal leen ban demee ba góor saane dem ñenn ñi dem ci alaaji basiiru ñenn ñi yem ci ñii waaye wuti xaatun leneen jiggi xaatun leneen ndax góor saane doy nañu fépp doy nañu fépp déedéet ba mu ñëwee kër mag doomi ndeyam ma demba caan la dal doomi ndeyam ma demba caan ndax sala njaay la ak saana njaay ñoo bokk jóge lumbal seen njaboot rek moo nekk ngeer maay wax na lu ñuy tiitaroo ñun waa ngeer rek lumbal la jóge Sala Ndiaye ak Saana Ndiaye ñoo bokk baay Sala Ndiaye moo jur Mamodi Sala Mamodi Sala jur ma demba ma demba jur jaaj ante mu jur kii Saana Ndiaye moo jur maam góor Saane maam góor Saane tabarakallaahu am na njabootu góor am na njabootu jigéen lépp barkeel na. góor Saane dàgg ji mu amoon ci Thiel. alaa laa woon la ko pël yi tudde woon daa meloon ni dëkk. demoon na ba saalum ñàkk la daloon yooyu yuusuf ak bokkam ya ñu ñëw di fa wut si am ñëgg dañ daan ñëw ku ne wax la nga soxla mu ne àndal ak jigéen ñu ñu bojjal la buñ bojjee ba nga def ci say saako ba fay des ba fay jot mu ne la def naa ko hadiya yonent bi looloo taxoon góor saane daan wax ne céel daal defuma fa dara lu muy jàjju baax jàjju baax jàkka ja tool ya jàngu ba seede bii may wax alaaj Usmaan nee na alaaj Maalik moo ko seede ci moom moo ne Góor saani musta tàqoog man béye ma soxla bu tàqalikoog man rek béyee na ma dundaw ren ba déwén eh, yàlla dogal nag mu yëkkati doomam sox soxna umm si jox ko ko di ab taalibeem ba niñ fay gàmmoo ba jamono yi ñu toll yàlla dogal nag ngéet gii ci la Góor Saane wàccee liggéey 1925 góor gi saa Yooda Njaay ak saa jàndam daabo ci kanam bàyyi xalifa bi ñoom ñoo tabaxoon jumaay ngeej ji fii mag ñu bari ñoom ñëpp boobu ñu ngi fii ci la taxawe woon wax waxam ju rëy ja woo ña dëkk gang woo ña dëkk melax woo ña dëkk madina njaay woo ña dëkk njaayaan saa penda gannaaw bi mu jógee ci saa jàndam daabo ca njarno defaral leen fa jàkka Eh, mayleen leen fa wirdu may na fa wirdu ba may fa wirdu eh, jigéen ñoo xam ne ñi ngi ëmb doom ci biir mu ne ñii ci seen doom yii ci biir mayaale naa ñëpp wirdu looloo tax njarno am kër fii ñu tudde ko njarno xam nga li mu liggéey ci jolof daa toppoon dëkk yi maa deen tunnuwa sagata njaayan saa penda mbàkke jolof melax gang maa mbayan cas de fekk na booba ay taale jàngoon fa kamara waaye fa la dëkk ndax foofu cosaanam la dëkk yu bari ci jolof ku ci nekk dafa laaj ñetti nit ñu ñëw mu dalal leen alquran jàngal leen ba jàngal leen laxdari yu jàngal leen risaala jàngal leen jàngal leen jàngal leen ba kenn ku ci ne mën a jiite foofu mun na la demal ca dëkk ba nga jóge woon ñefa ne ñu joxala ko nga jàngal ñooñu def fa ay daara lu jiit loolu mag ñi dañ daan def bu korite ñëwee wala euh, tabaski wala korite kenn ku ne ci dëkk yii ma la limal da ngay yónnee sareet wala fas wu ñu war góor saana jox la ilimaan mu ñëw foofa jiite leen ñibbisi mu ne loolu mënut a wéy nañ leen jàngal loolu tax njàng mi tasaaroo góor saane liggéey na loolu ci biir ngeet bi mu génnee àddina nag ci la ko alxaaji Bamba Ñang di baayu xalifa bii wuutu ko wuutu ko à 1925 ba mu génn àddina yàggul laaj baam ba yàggu fi 45 ans la dund werante am na ca ñi ne nañ 50 ans la dund ñi ne ñun fukki at ak ñett la dund. waaye ndigal la ñëw mu jëfee ko barke ba dal na góor. jumaa ji daal bi mu lan ko sos moo na nan tabax jumaa vingt mille neuf cent vingt nan tabax jumaa waaw fekk na fi ay jàkka fekk na fi jàkka ngir dafa feesoon dell ak taalibe bi mënatuñ leen a dundal sax waaye yàlla mayan na ko lu mu bay mun a gàññ du du xaaj ñu réew mi mën nañ cee dund at mu jot dana ñorale lu réew mépp mën a dundee muy jox way néew doole yi ba ba mu yem ci dundam at moom jógee aafe dem ci fukki sàq ak juróom-ñeent moom la góob ci àll ba bañun ko de tos yi rek la topp ñu def ay xàll bay xaaxaam bi góobi googa tos bu beneen ñu def di ko def ba muy sàq yu kenn xamul tool yàlla da ko mayoon kiraamam dafa bëri mëne su ko nettali kiraay ma góor saane mën su ko nettali loolu moo tax euh, tabaarakallaahu euh, jërul xuus lu bëri ngeet bi mu fi ñëw dafay fekk góor gu baax gu xel ma ñaw gu tudd sàq caan moo jur mbuus caan mbuus caan jur Ousmane caan mii ñuy tudde borom dëkk te nguuda ñang jur ko Ousmane suñu doomu bàjjana yaayu Ousmane ak bàyyi xalifi bi ak sun bàyyi ñoo bokk baay jëm si wutoon ngeet ma nga jëmoon lumbal kër ndeyam waaye bi mu fi fekkee góor googu mu xool ko te am na lu ko yàlla mayoon mu ne kilifa gu toll nii ak wàll yu toll nii kenn du ko romb du romb kenn bu amee fulla ca la ko tëyee fekk na ku ñuy wax góor saane caan mu dëkk melax ñu tuddee ko ko te boobu ma nga ciyel kooka moo ko tekkil fasu yóbbul ko kër sàkk caan mu ne ko nag jël naa sama bopp jël naa tool yi jël naa lépp tey nekk taalibe jox la ko bu na baasin la tax góor saane daan dem foofu ci kër gu mag bu na baasin ak maane baasin ak jëbu baasin ñun ñoo bokk ndey ak baay ak koddu baasin mu jur sayar koddu bu na baasin moo jur tafsir demb budd mu jur Ousmane si mu jur sëñ xaj maane maane mu jur aysa mu jur balla mu jur mor arsal yi mu jur Xaadimu Rasuul ak maam Mor Jaara euh, maane baasin moo jur jëbu baasin jëbu baasin jur batur jëbu Batoor jur Saane Njaay mi ngeen génne barki dem ba affaire mu jur mam go Saane Njaay koddu Basir mo jur Sayar koddu sar koddu jur El bashir euh soxna kan mu jur El bashir mo jerbatu meenu mam go Saane Njaay ki jërbaat yaaya mak El bashir Bachir ñoo bokk benn nday El bashir Bachir kim awalo ak bayu El Hadj Bamba ñoo bokk baru ko jur moy mamu papa ñang mi tok waye bokk goga mo dan tax Góor Saane bu ma saan dem Tiwaawoon bu wëññeekoo day ñew Touba. Euh, Seydi Hadji Malick nag da koy bindal leetar na ko bu romb sama mbokk mi ci njaareem buy jege njaareem it Serigne tubaa da koy bindal leetar na ko bu romb sama joxal ma leetar bi sama mbokk ma ci Touba kon nga gis ne maam Góor Sané yàgg naa yéwénal ak bokk xamoon na ne ak bokk dañ koy dox dañ koy rafetal mu doon ko dox di ko rafetal Serigne tubaa demoon na ko ba ne ko góor koo topp da koo sagal waaye fan maye ñëpp fa lañ la maye. Maodo nee na maam góor saane guddi gu yonen waaye ndigal la ñëw ay xutbaam daana wax ne sowu jant njoogumati moo fi indi salaatul fatiha kon loolu gën naa firndeel dëggal ne moo tasaaree lislaam bi ci biir réew mi mhm. moo jëkk lal malaan malaan tam mhm. dëgg la Cheikh moom moom la dajeel moom ci moom wérdu ci moom la jóge ci moom waaye jëmmi tasaare gi fii ci biir réew mi maam Ndiogou moo ko def ñu fi am moom mu xaddamal mu xaddam yëpp itam waaye diirib loolu muy dox loolu itam mi ngi ànd rakkam jooju maam góor saan sës ci moom rek comme may werd rek ni ko suñ baat daa nettali daa wax ne tëf may naa la werd bon naa la góor ko daan waxee bu ne may naa la werd bool naa la góor sànni nga xam ne loo noonu la tegee liggéeyam boobu nga xam ne moom doon mission bu doon dox yi suñu borom sant ko ko lépp ci loxo maam góor sànni la ko teg tukki boobu nag tukki bu yàgg la ndax bi muy dem booba sëñ Baara mi ngi toll ci feeñagul jamono dem na ba am juróom benn weer mu door feeñ jamono léegi bi mu ñibbisee nag ba wër boobu mu wër ba dajal ba bii Jolof ak Dagana ak ba Mali ba Burkina Faso seen tukki boobu matale na ko mm-hmm. waaye lu lépp nag waaye yàlla defaloon na ko it kum jàkkaarloo nga nangoo ko mm-hmm. te moom li mu doon dox boobu jihaat la ko jàppe nga xam ne àggoon na ci moom li muy woote ku ko nanguwul mu mu xeexe yow mm-hmm. waaye yàlla da ko da koo defal kum jàkkaarloo nga nangoo ko noonu la tasaare werd bi lépp ci ñëw na waaye lépp ci loxo góosaan la ko teg itam waaye góorsaane ñang de woote na ku wuy ji am ngeen bokk na ci dëkk yoo xam ne yii Sénégal war nañoo jàngat nañu nekke seen diine ak seen tarixa moo di dëkkab tijaan la ngeet mais bokk na ci seen tradition ngeet ku fa taawloo góor mais Bamba nga koy tudde muy Cheikh Ahmadou Bamba Ngor Sané Niang nag wone na ne moom lii bari li nit ñiy wax ci rajo yi ci télévision yi ci tant yi ci gamag yi ci gàmm yi moom da koo dund soo demee nget tey néew na kër goo fay dugg te doo fa fekk am bamba te bamba mi ngay waxaat ak tijaan la nga xam ne kon ñoom xam nañ ne li ñu bokk ak murid yi li ñu bokk ak yi li ñu bokk laayeen ëpp fuuf nu mu deeti li ñu nekk moo di diiney lislaam gi benn yonent bi sallallahu alayhi benn téere bi alxuraan loolu nag bokk na ci mandarga yi nga xam ne war nañ koo mën a fisal war nañ koo mën a waxtaane gis yeneen yu mel noonu yu am ci biir kër yeneen diine yi yu du ngeen rek parce que yemu fa rek nga xam ne dinañ ko def muy ay baax ay rafet yoo xam ne yii askan wi buñ ko gisee dinañ xam ne ay nit li ñu bokk bu ëppee li ñu nekk comme particularité war nañoo gën a sàmm lañu ñu bokk diina ji lañu bokk moo di diinay lislaam ku nekk nekk ci yoon woo xam ne boo ca tegoo na nga ca war a tegoo yàlla dina la fayal ëllëg boppam ñu xam ne kon fan jëm benn la ñuy tiralante ci seen biir di suturalante ci seen biir di nemmañ kont ci seen biir loolu bokk na ci liggéeyu maam góor saane góor saane sëñ tubaa joxoon na ko doomam comme ni ko ko alaaji Malick joxe e, kooku moom mooy suñ bàjjan moo juróon Cerno Buso Cerno Buso moomu daanañ jóge fii di ko def aman ñang mii nga doon dem bëri démb ngeen dem tudde na ko doom soxna Fat si alaaji Malick ñëw na fii di ko ndokkeel si fekk boobu mu sëriñ tubaa jógee na Mauritanie ñu tey ñu tëye ko fii ci ci Thiène waaw ci la nekkoon ci Thiène bi mu yëgee ne sëriñ Alaaji yi mi ngi nget mbaax ak mag ñi xam nga ko mu ne waru ko moom Alaaji Maalik di magam mu fekk ko njaarnde fekk ko bu culle nekkul lu muy ciyeen gii ñu ne Alaaji Maalik a ngi ngeet mu war a nuyu si góor saane war a nuyu si Alaaji Maalik ñoom ñëpp di ay magam nen loolu waru ko kon day ndokkeel si moom itam soxna ummi ndax doomam la mu ñëw ca tudd ga soxna fat si moomu moom la maam góor saane taawloo ak maam soxna ummi euh, yaayi alaaji mu dugg te ca jawre dund na téeméeri ak ñaar fukki at ak juróom-ñeent te naaxul nee na ma bokk naa ak ñoom ñam ndax xar ma leen sa maam reyaloon maa ko doon togg ñoom ci lañu rëdde jàkk juma ji ci lañu rëdde armel yi tudde ko bàqiya kaamil boobu ñoom ñoo ko bokk jàng ñoom ñooñu ak ñan ñi fi ñan fa fekk woon ñu bokk ak ñoom jàng kaamil boobu soxna fat si lañu fi njëkk pour saani li ma la wax bi sëriñ Touba di sëñ ci Mbàkke Baari gii moom la woo mu jóge aafe ànd ak mbooloo xam ndax boobu xam nañ ne góor saani fu mu dugg ak mbooloo am bu fekkoon dafa dafa dafa dafa dafa yaraax bu fa duggee mu fees mu dugg fi ak mbooloo am jàppale ko ba ba mu am fi fanweeri néeg ak juróom-ñaar tàggu ko ñibbi këram euh, soxnaam am gone booba telegram moo xew mu telegram Seydil Hadj Malick wax ko ko ne ko sama xel dafa buddee woon ci tuddee ko yonte yàlla Muhammad comme sama tur wii kër gii ngay dégg ñuy wax kër gu mag ca Touba li tax di ko tudde kër gu mag Serigne Touba moo fa daan dalal sa maam Góor Saane ña ngi radiyallaahu taala anhu tudde ko daan wax Cheikh Ibra jëlal añ yi yóbbu ko kër goor ma sëriñ bi Cheikh Faty deya xam li la war manu te sàmm ñang deya mat li nga doon ñaanal ñu Cheikh Faty ñang sunu maam mooy xalifa maam góor